yàlla atte na parce que gañe ngeen jël ngeen pouvoir bi léegi mais Ousmane Sonko ne semble pas oublier ça soo ko dégloo il est amer dans son discours il s'attaque à la presse il s'attaque à l'opposition il s'attaque au président du conseil constitutionnel Badio Camara alors que léegi il n'est plus un opposant falu na mi moo yor nguur gi mais apparemment il accepte mal les critiques ba tey ba tey jii d'abord Ousmane Sonko ne s'est pas attaqué à la presse ci il ne s'est jamais attaqué à la presse nee naa la Ousmane Sonko du attaqué corporation xam nga yow nga nekk sama patron de presse nga recruté ma comme journaliste. Mhm. bu weer dee boo may fay nga génnee ci loo xam ne nga ne impôt la impôt bu fa mu war a dem. keesu boobu. lu tax demu fa loolu la wax il n'a pas dit ñoo xam ne dañoo tekki ci peeru nit ñi impôt ne dañ koy verser état. Mhm. nañ ko verser état. mais loolu boo ci boo félicité wul Ousmane Sonko waroo ko ngañ. mais c'est pas la la les seuls propos. nee na il n'a pas de compte à rendre à la presse aux journalistes wax na fi loolu aussi. non cest à que moom nee na. nee na sax journalisme Sénégal presse bi amatul amatul njariñ. non man dégg naa benn vidéo mu koy waxee. non non Ousmane Sonko ne s'en est pas pris à la presse Ousmane Sonko li mu wax dafa am ay une yoo xam ne ñoom ñooy indi jeexi jaaxa nee na parce que aussi booy doxal réew. da ngay bëgg mu tegu ci yoon. Mhm. loo mun mënta wax na nga am ay firnde suba buñ la wooyee nga indi firnde ne. lii laa ko lañu waxoon nañ ko wax waxaat xam. non c'est-à-dire que dans la que ñi doon wax ci affaire commandant euh, général Kandé dañ doon wax ci seen teyu bakkan mais teguñu ko fenn moom la wax ni loolu ku ko def fii dañ la yóbbu ci kanamu yoon. yoon boobu noonu moom souffrir na ci lu bëri bëri on espérait qu'avec lui ça allait changer parce qu'il y a eu des convocations il y a des arrestations y a même des emprisonnements des condamnations sauf que moom bi ko yóbbu ci kanamu yoon teguñu ko woon ci dëgg mais y a un parent du président qui a été traîné devant la justice est-ce que lu ngeen ñu bëgg kii rek pour parce que le gars yàggu fa après dañ ko génnee ñu nañ ko topp psychologiquement c'est important Macky Sall mii bu mu bëggee woo Karim Wade à l'assemblée mhm. lan la papam wax kenn du woo sama doom assemblée nationale mhm. loolu ni seen problème ñoom ñaar waaw parce que moom dafa bàyyi réew mi jiital doomam sama doom mais rupture bi nga bëgg wax ne ñi ngi ci aussi est ce que am na bu baax a baax dans la mesure où quand Ousmane Sonko dit que le ministre de la justice envoyé ko vidéo di ko laaj ban posture la war adopté loolu c'est assez grave aussi c'est pas grave ah oui xam nga ce la réponse de Ousmane la réponse elle est importante. et ah. on, apprécie. mais mais c'est ça dafa jeter en pâture le ministre. Non, aussi non il n'a pas jeté en pâture comme si da doon demandé le pour mu yaakaar na doomam la. la question mooy. est-ce que les, les relations les relations les relations un autre cas. les relations entre le premier ministre. Mhm. et ses ministres man xawma ko. Mhm. mais man li ma ci ëppal solo mooy lan la Ousmane Sonko tontu. ak ku mu munta doon defal sa liggéey loolu laa la sant mais mer gu